mosquée Masjid Ibrahim bi ñu tëj ci rëbës tey ci suba benn jigéen dafa ñëw di defar jàkk ji jëkk nañ ko wax ci fan yële wax nañ ma ci proposé woon nañ ma ci lu bari ma ne kenn du ko fi defar góor jigéen du ko fi defar tey nag góor jigéen yi dem nañu ñu jox leen caabi jàkk ji pour ñu ñëw ibbi jàkk ji defar ko te jàkk ji li ko tëjoon beneen problème la bu dul loolu jàkk nag góor jigéen amu ci doxal amu ci defal ñu jaar ci benn jigéen pour mu ñëw jël caabi ji commissaire u police u rëbës jox na ko ko ñëw nañu commencé di liggéey foofu te loolu warut ndax nag réew bokk diine ji dafa am ñu ko yore te luñ ci def lañ ci def ci yoon man mii di ilimaan bi yëguma ne ñu ngi defar jàkk ji du préfet du gouverneur du ministre de l'intérieur bu mu ci oo gisuma ci lettre gisuma ci devis gisuma ci autorisation de construire gisuma ci dara jox nañ ko benn jigéen daal bu yore alalam ñëw ne daf koy defar LGBT yi oowoon nañ ma ci ci ginnaaw di ma ci menacé pour ñu defar ko ba bañ kon nag la ma jàppoon ndax am na ay jullitu taxaw pour defar ko nangu ñu lu leneen ko kon nag góor jigéen ñi waruñu ñëw di defar jàkk ji loolu maa ngi ci oo Sénégal yëpp di ci oo waa diine di ci oo journalistes yi ñu opposé wu ci loolu du fi am incha allah